cee tàmbalee nag mooy euh, xew-xew bi amoon àllarba bi ñu weesu. Mm-hmm. ba ñu doon wax ne loo xam ne la dinañ ko samp bu baax ci wàllu taarix. Mm-hmm. ci Sénégal. Mm-hmm. muy kuréelu ànd sàmm jukko yi nga xam ne. jóg nañu taxaw temm ngir sàmm valeur yi nga xam ne moom la fi maam yi bàyyi waaye yi nga xam ne. moom la ñu diine digal ñu daal di koy sàmm. bokk na ci li nga xam ne wàllu góor jigéen. muy proposition de loi bi nga xam ne. Mhm. déposé nañ ko àllarba ca assemblée nationale ci mhm. ndimbalu fukki député ak benn. Mhm. ngir criminaliser ngóor jigéen maanaam képp kuy taxawee ngóor jigéen ñu méngale la koo xam ne dafa faat bakkan. Euh, mbir moomu ak euh, débat yi ci am. am na ay député yoo xam ne nee nañu euh, jarul sax ñu koy indi parce que duñ ko voté si ñi nga xam ne. bokkuñu si. Euh, ñiy taxawu kuréel gi. Mhm. waaye itam ñoo xam ne nee nañu buñ ko criminaliser jaru ko ndax code pénal sanctionné na déjà li nga xam ni ñu leeral ko muy acte contre nature ñu ba tey homosexualité mhm. loolu ci sa xalaat. jërëjëf Cheikh Abdou Khadre subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal alimul hakim xam nga penc bi dañ ko bokk mhm. ñun ñëpp. ñun ñëpp. sunu borom wàcc na fi it ne wala tufsidu fil ardi ba'da islaahihaa ginnaaw dañ koo bokk nag buñ gisee loolu jàpp nañ ne buñ àndee dem ca sunu borom jéppinu waxtaan ba bañ caa dem a gën boo xamee lii buñ ca demee borom jéppinu waxtaan ba bañ caa dem loolu lay li gën te it ni ñuy doxe nii di gis ne eh, nangam xew na ci at sàngam nangam xew na ci at sàngam loolu li muy xeeñ moo neexut léegi nag yóbbub loi nu wateel la ko jarul xuloo yeeg dóorante korpañ mm-hmm. jaragu ko mm-hmm. déedéet ah bëgg a dugal ci bopp nit ñi ne réew mi nii la def nun ñëpp ay jànkat lañ su fekkee dañu dox ba mu yàgg ñu ne sa carte d'identité sama ba sunu tur yaay nekku ci mm-hmm. suñ tur papa nekku ci ñu bind ci ne bàyyi ko noonu rek kii kii analise def naan lu tax suñ daan yu njëkk yi amoon ko yu ñaar li xaw ko am yi amu ko fu jëm ah fi ñu jëm bu ko nit ñi di analyser dañuy tiit ñu ne nag léegi nañu wut benn benn benn benn benn benn lettre benn loi benn proposition yéen ko député ne leen ñun kat lii moo ñu tiital ñu bëgg a def lii te loolu su boobaa day baax ci réew mi baax ci ñépp ndax moo gën nit di fajal boppam am réew tooñ su nit defee lu du noonu rek ñu ñu fajal la ko day gën a woyof ci nga fajal sa bopp moo tax loi bi baax na ci mépp baax na ci penc bi ndax nag day jàll ak du jàll nan toog xaar waaye daal wal takku minkum umma yad'una ilal xayr suñu borom nee na penc bi mun te ñàkk ñoo xam dañ jóg naan ah lii kat ëpp naa def lii buñ dem fii su fekkoon du noonu buñ demee ci suñ Muntaxa du ko du ko du ko du ko kon su boobaa kon su boobaa bu ñu dem sëñ Babacar Sy Mansour du ko signé su boobaa bu ñu demee Njaasaan baa cene baa feneen fu ñu fa dem kon ñoom dañ naan duñ ko signé ndax lu tax dañuy xam ne lii am na ba noppi kon jarul signé ñoom nag seeni ndaw la nu noon naan ak ñu naan ñu teg leen ak yëkkati leen rek ñu yëkkati donc loi bi war naa mën a nekk incha allah. wa shukran. d' accord beneen bii la xaw a lëkku tuuti ci question boobu mooy ñu bari nee nañu ñu ko defee Euh, euh, nasaraan yi ak ndimbal yi ñuy jox euh, réew yi Afrique yi bu boobaa dañ koy dakkal te bu boobaa. loolu nag aw xas la ci réew mi. Mhm. loolu moom aw xas la ci réew mi réew mu am indépendance 1960. ñu mm. dox ba 2022. ñu ne ko soo soo dindee garab gee. Mm. France mi la yoroon ak Amérique dañuy téye seen loxo kon duutoo dund loolu moom aw xas la ci réew. loolu moom wax dëgg yàlla aw xas la ci réew. man damaa defoon bi ñu amee indépendance bi léegi ñu noo demal suñu bopp man lu laa foog te loolu nag la gëm di bay di dunde te li ci réew mi yor na réew mi li fi nekk ci suuf li fi nekk ci ndox ak yu nu demee nekk yooyu buñ fi nekke nag naan léegi suñuy ñëwut loolu moom la alxuraan doon wax ci suuratu tawba hmm. suñu borom daa am am at rek mu ne kaaba gi bu ko benn musirik jegeeti ku bokkul ci diine ji moom ko jegeeti am ñu ne ah ak ñi liñ daan indi keccax bi ñu fi daan jaay si si ngom si ñu fi daan jaay si nangam nangam mi ci daan jëlee xaalis suñu war ay la su fekkee da ngeen a ragal ñàkk jàpp ne ñoom bu ñëwut du ngeen am kon man man lu fi def dëgg dëgg <laughs> lu ma fi def sëñ euh, Abdou Khadir hmm. gis nga Amérique muy France mu yooyu surtout France gii hmm. France li fi nekk fii la ko jëlee nu amul fulu dong waaye France la defar France fii la ko jëlee <laughs> guerre mondiale nun suñu demutoon naga ni France Allemagne koy moom mhm. nan waxante dëgg rek lu leer mhm. France moom xam na nu nooy ñan mhm. coupe d'Afrique bi coupe du monde bi ngay bëgg a wax la coupe d'Afrique keera ba ñuy bëgg fu football ak France lu nu France waxoon coupe du monde nekk gâteau gâteau gâteau <laughs> tournoi bi bañ ko jàppee nuñ ko def labali xanaa fa lañ war na doxee xon ñun déglu noonu noo man France ci côté yëpp fa sëñ Abdoul ñoo ko mën ci football. Hmm. yeneen yi nga xam mënuñu ko ci. waaw. niñ ko mën a ci terrain bi lañ ko mën a ñoo ko mën a ci économie ñoo ko mën ci social ñoo lépp ñoo ko ci man keroog lañ ko wane woon. Hmm. léegi kon nag naan bu ñu ko defee tubaab bi duñ ñëw. Hmm. waaw buñ ñëw duñu duñu tee dundu de. waaw. Oustaz dafa nga baal ma sax dafa mel ni ci alxuraan aussi am na benn aaya mhm. bi suñu boroom di wax ak ñun foofu mhm. ne bépp bakkan boo xam ne dafa soxla dund bés bu ne waaw moom suñu boroom moo koy jox mën nga si ñëwaat waaw wa ma min dabbatin fil ardi mhm. illa luy dox kaña yii yàlla mu ne maa leen di rabataay rabitaay janax yii maa mbaam yi fas yeeg xar yeeg nag yeeg bëy door a ñëw ko dañ koy gëm nag loolu dañ koy gëm daf fi indi yoo xam ne gis nga suñu napp gii nappum jën mii transport bi mbay mii ñaw bii nangam ak nangam yooyu li ci génne bu doon jaar ci ñun di agsi tedd nañ bu yàgg tedd nañ bu yàgg malheureusement ak wàllu pétrole bi di ñëw sax waaw ak wàllu pétrole bi di ñëw nga xam ne bu soobee suñ borom mhm. léegi te ñu commencé tànk ah waaw fii ak 2023 incha allah incha allah mhm. jërëgeen jëf mbokk yi ci seen jataay bii di Sénégal 7 euh, nekk fii Sénégal 7 Sénégal 7 point com jërëgeen jëf yi ñu ci biir ak ci bitim réew jërëjëf Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ne moo doon indi laaj yooyu tabarakallahu kon ñu daal leen di xaar ci li des ci simili yi ci 77 883 41 83 contribution yi wala question yi question bu juru yomb ñu tontu ko mu jafe ñu gàntu ko daa min am na ku ne ci waan wi waaw salaam wa rahmatullah Oustaz Alla ñu ngi lay nuyu di la ziare naka bokki Allemagne Allemagne ah, naka feebar bi foofu naka feebar bi feebar bi dee ngi fi Pape Sarr. ah <laughs> mu ngi fi ne di yaatu rek di gën a bëri. mu yéen allahu akbar. moom de mu ngi noonu moom moom macha allah taay moom mu ngi noonu. bisimilah Cheikh mu ngi tane alhamdulilah. alhamdulilah yàlla na gën a tane waaye. alhamdulilah. ñoo leen nuyu di leen ziar bu baax. jërëjëf. Eh, di leen masawu ci liggéey bi. ndeysaan ndeysaan. di rafetlu liggéey bu baax. alhamdulilah. tawfiq sutura ak xéwal. amin amin dafa am sama benn xarit bu may laaj loo ne ma ne ma laajal ma laajal ma ko ne ko ndax yomal xiyaam bu ñu yàlla yóbboo àjjana ban dem ndax am na visite am na am na ay visite di na diw laa ah d'accord d'accord daal la may laaj loo nee ma daal laajal ma ko papa oustaz incha allah jërëjëf waaw ñu ngi lay nuyu di la baax nag di wax joxam rek juma mubarak Cheikh Ibrahima fay ma nga fële ca Allemagne soxna Aminata Gueye foofu la nekk Mouhamadou Ñing ak gaa yu baax yi nga xam ne ñoo bokk ñoom ñëpp nekk ca Allemagne amoon naa fa jenn waa joo xam ne ñëw mu ne ma man bokkuma ci lislaam waaye nag dama la bëgg may benn affaire boo xam ne bii buusal lañ koy tuddee mooy loolu ngay teg moon la penk bi maa ngi koy nuyu bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illaa maa allamtana innaka antal alimul hakim ñu ngi leen di xaar nag ci ñi ngeen def ni Cheikh Ibrahima Faye def yowmal xiyaam ndax danañu ziarente Cheikh Ibrahim dafa am dund guñ doon dund avant ñu ñëw fii boobu amutoon ziarante ñu ñëw adduna di ziarante buñ fi jógee dugg bàmmeel du du ñu ziarante bu ñu dekkee du ñu ziarante ndax ziarante dafa am luñ ci bëggoon sunu dund gi laaj ko fee nag duñ ko soxla maanaam man mi jóg dem kër Ibrahima Faye dafa am lu ma bëgg ci moom mbaalum lu bëgg ci man léeg-léeg nga dem fa mu teral la ngay dem mu gunge la loolu relation yi ci àdduna relation humaine yi moo taxoon montagne yi bi leen suñu borom ne yéen laa bëgg a yóbbu kaw suuf jox leen al amaana fa abay na ñu ne ko déedéet ndax montagne mii ci wakaam mënut a dem ci montagne ma ca gor ngor naan ko nu ngeen yendoo wa ca gore it noonu moo tax foofa loolu mën na faa ñàkk ndax suñ dund gi fii bokkut ak suñ dund ga dund nañ ci al adam dund ci al wujud dundaat ci al dundaat ci barsaq dundaat al jannat awi naar su ko defee foofu duñ soxla ziarante gi kii dem na kër diw kii dem na kër diw jërëjëf Cheikh ma ci laaj bu am solo bi ñoo ngi xaar keneen ci 77 883 41 83 77 883 41 83 minutes yu tuuti la ñu dese tabarkallah bu fekkee kenn ñëw ñu jël ko bu kenn ñëw léegi tey nu tàggoo tàggoo boo xam bi tàggoo bu dul tàggoo la jërë ngeen jëf sunu jataayu tey mi ngi jëmoon ci fàggu lu dagan wax nañ lan mooy fàggu wax nañ lan mooy li dagan lan mooy li xaraam boole nañ ci xaraam corruption boole nañ ci xaraam intérêt bu dëggnut euh, boole nañ ci xaraam xulul te mooy ñu boole ak nit ay nit dara nga jël ko yóbbu sa kër wala nga jël ca bokk na ci waxtaan wi lu jëm ci bor xam naa incha allah moom danañ ko beral waxtaanam spécial bu ñu yàlla may nu dund ba jël siwaat jërë geen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak Sénégal 7 jaajëfal le directeur Pape Ngagne Eh, di am mbégte lool ci liggéey bi mu nu boole ndax bëgg nu am tuyaaba jaajëfal ñoom eh, mbuub ak mboolem ku ci jàpp journaliste yeeg caméraman yeeg technicien yeeg ba ca ngóor sa ci buntu ba tey joxe ataay ji sax mi ngi ci biir <laughs> yàlla na yàlla defal ñëpp te fexe ak sutura ak teraanga yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu